بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ci suratu nisa lan toll di jël tey ñaari aaya aaya 29 ak aaya 30 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala lim ñi ciy jàngal juróom benn mbir la bi ci njëkk mooy xurmatu maalul muslim mooy araam bi nga xam ne araam na ko alalub jullit jullit alalam dafa araama laal deretam araam naa tuur deram araam naa yàq kon loolu na leer ci ñun ne xurmatu maalul muslim alalu jullit dafa am xorma yàlla da ko ñoŋal wa kullu maalin xaraam wa sawaun faasahu bi saraqa aw gash aw gish aw qimaar aw riba sunu borom nañu bépp alal joo xam ne jullit bi daf koo am ci anam yii di ñëw alal jooju dafa xaraam bu ko amee ci sàcc alal jooju dafa araam bu ko amee ci wuruj ci tappale alal jooju dafa araam bu ko amee ci carte alal jooju dafa araam bu ko amee ci riba alal jooju dafa araam kon yii ay yoonu amin la yu nit ñi jaar bi ci amee waaye nañu bàyyi xel ne ku ci am alal te ci yii nga ko amee alal jooju dafa xaraam te lu araam moom daganu la lekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man akala luqmatan min xaraam laa tuqbal lahu salaata arbaina yowman képp ku lekk benn tibb dank ci lu araam boo jullee 40 jours yàlla du ko nangu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kullu maalin nabata ala xaraam fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne source ba dafa xaraam yeneen bi nee na safara alal jooju safara moo ci yey ku kuy lekk lu xaraam boo ñaane yàlla du ko nangu jàngeen ko ci xadis bi waa ji nga xam ne malbasu xaraam wa maakaluhu xaraam wa uhita bil xaraam yeneen bi ne fa annaa yustajaabu lahu naka la ko yàlla di nangule ndax li muy lekk dafa xaraam Saad ibn Abi Waqas bi muy ñaan yàlla bi muy ñaan yonent pour ñonan ko yonent ñaanal ko yàlla su ñaanee yàlla nangu da ko ne atib mat amaka li ngay lekk na dagan sooy lekk lu dagan rek boo ñaamee boo ñaanee yàlla yàlla may la li tax léegi ñu am problème ci suñuy ñaan nañ xool suñu bopp yàlla ba léegi mooy yàlla wala penku bi ba léegi fi mu nekkoon jógu wala julli ba léegi ràkka yi wàññuñ ko yokkuñu ko wal alxuraan ba léegi alxuraan la waaw kon li tax li amoon démb munta am tam parce que ñee ak ñun dunu benn seytaane ba mu jàppee ndaw si ñu indi ko ci Omar Omar daal di ñëw julli ñaari ràkk pare daa nepp auzu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qaaf ndaw si yuuxu daal di waccu yu gis lu ñuul génn ci biir bi di daw mel ni muus mu ñuul di daw ndeke seytaane la Omar génn àdduna seytaane daal di dellusiwaat ne saraax ci ndaw si benn waaye ne fekkee naa ko fekkee naa kii kii la kii la seytaane bi jàppoon ci jamono Omar ñu ne waaw mu ne fekkee naa la ko Omar di faj xaar la ma ñëw dem jàpp julli ñaaraak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف mu ne ko doo Umar lasta Umar doo Umar waaw pourtant même aaya la temps même même alxuraan ndax gémmiñ moo ko jàng waaye du benn fa mu génn fi bee génn ak fi bi génn du benn loolu mooy sunu sunu problème kon lekk lu araam baaxul loolu la ñu yàlla di njëkk a jàngal ci aaya bi mooy xurmatu maalul muslim alalu jullit dafa am orma waaye bu fekkee alal ji dakaa amee ci sàcc ci tricher ci wure ci riba alal jooju araam na ñaareel mooy ibaxatu tijaara wa targibu fiha wa raddi ala aljahala almutasawif allazina yamnauna aliktisaaba bi xujja atawakkulu mbokk yi bokk na ci li ñu yàlla di jàngal mooy daganal gi mu dagal ci ñun ñu commerce gis ngeen commerce métier bu am barke la ba pare yàlla def ñu ko daganal ba pare ay yax la ci alquran texte la wa ahalla allahu albaya wa harrama riba yàlla nee na maa daganal njaay harama riba commerce yàlla moo nu ko daganal yemu ci waaye wa targhib fiha dafa xemmem loo nit ñi pour ñu commerce mu ne ci xemmem loo gi islaam xemmem loo nit ñi pour ñu commerce ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Omar da daan wax ne ku xamul fiq bu mu jaay ci sunu marché ñëw na ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soññ nit ñi pour ñu nekk commerce pour ñu commerce yonent bi ne attaajirul amin fi qawlihi attaajiru suduq al amin al muslim ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada yawma al qiyama yonent bi nee na bépp commerçant bu dëggu bu wóor nekk jullit ëllëg yowmal qiyaam moog yonent yi ñoom ñooy nekk waaye xoolal at taajir la wax commerçant as-saduq bu dëggu al amin bu wóor al muslim nekk jullit kon commerçant bi pour mu ànd ak yonent bi ëllëg yowmal qiyaam dugg àjjana ñaata jikko la yam ñeent ñeent bi ci njëkk mooy foog mu nekk commerçant di jënd di jaay di di di di ñaareel as-suduq foog mu dëggu ci li muy def ñett al amin foog mu jub wóor al muslim nekk jullit gis nga yonent bi nee na ëllëg ma annabiyin day ànd ak yonent yi kon commerce am na barke ndax islaam daganal na ko waaye soññ nit ñi xemmem loo leen ko waaye day tontuwaale ñi naan ah naa tëdd nelaw rek yàlla daal bu nammee maam dina am ndeysaan yaa caaral dafa am ñaari baat ci arab benn baa ngi tudd atawakkulu benn baa ngi tudd atawakkulu atawakkulu mooy wakkiirlu ci yàlla xëy suba dem uti bañ a tëdd nelaw atawaakul nag mooy tëdd nelaw naan ci yàlla maa ngi ni tëdd de ndékki rek laay xaar fi mu nekk nii damay ginaar sax baax baax na su ma war a tëdd di nelaw kële moom génn ne yàlla maa ngi nii maa ngi dem lu ma dajal ci yoon bi baax na kii nag moom tëdd naan yàlla ah maa ngi nii de ndékkee gu ma nag loolu boobu baaxul boobu mooy tawaakul boobu mooy yaafus ba moo dal sénégalais yi feebar bu bu bon boobu moo dal sénégalais yi bëgguñu def dara ba pare bëgg nekk ay milliardaire bëgguñu liggéey boo waxee ñu ne gisuñu li ñuy def àll bi ne yàmbalan ndox mi ne yàmbalan suuf si ne yàmbalan ñu ne xamuñu li ñuy def ah dañuy toog toog di xaar kenn léegi sax am na affaire bi am na changement ndax démb moo yaakaar ne ku jàng tubaab rek ci bureau nga war a toog affaire bi soppeeku na gis nga yàlla nu mu wëlbatee mbir mi kon ab jullit dafa war a nangu liggéey ab jullit dafa war a ñaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne soññ na nit ñi bu baax a baax ci daawud pour nit ñi roy yonent yàlla daawud lu tax mu ne kaana yaakulu kaana yaakulu ala amali yadihi loxoom la daan moom li mu daan lekk loxoom la ko daan liggéeyee loxoom la daan liggéey am na benn waaye bu Omar dóor fekk ko ci jàkka ji caw ko caw yu mit te baa ji da doon julli lu tax Omar dafa dégg ñu ne kii moo baax kii de du génn jàkka ji fi lay fanaan la ilaha illa allah te day woor Omar na day mu dee de Omar jël yar bi caw ko caw yu mitti ba waa ji daw jël ay bagages am fër nit ñi ne Omar lii nag la kii baaxul ah ñu ne kii di julli fi fi yëpp fan yi fi yëpp la nekk Omar mu ne ku koy jox mu lekk léegi ne ah dëkkandoo yi mu ne ah bu ñëpp meloon moom musiba def waaw na dem liggéey mu joxe waa ji bi mu ñëw dugg ci jàkk yonent bi di yalwaan lu ko yonent bi def lu ko ne lu nekk kër ga mu ne am naa fa benn ndaal ak benn mbaaj dama ngay dikku bi muy ne mbaaj mi ak ndaal bi yonent bi sahaaba yi kuy jënd lii benn waaye daal di jënd ndaal bi dërëm kuy jënd mbaaj mi keneen daal di jënd mbaaj mi dërëm muy ñaata ñaat dërëm yonent bi jël benn dërëm bi ne ko demal nga jëndal ma ci sémmiñ mu dem jënd sémmiñ yonent bi jël bant def ci ne ko jëlal dërëm bi nga denc ko kër ga aca demal 40 jours bu ma la gis ci jàkka ci 40 jours bu ma la fi gis waa ji dem ci àll bi di taxan di jaay di taxan di jaay di taxan di jaay ba mu ba mu mat 40 jours mu ñëw mi ngi sol yére yi rafet mu ngi leer nañ lépp a ngi melax leen di na ko sawaay naka mu ne lu nekk ci foos yi mu ne fees del kër ga loo fa bàyyi mu ne dépasse bu takku ñun ne du lii moo gën ngeen nekk di tàllal seen loxo jox nañ leen wala joxuñu leen yadul ulya xayrun min yadi sufla loxo bi nekk ci kaw yonent bi nee na moo gën loxo bi nekk ci suuf parce que loxo bi nekk ci suuf mooy ban loxo bi nekk ci suuf mooy ban mooy bii jël loxo bi nekk ci kaw mooy ban mooy bii joxe yonent bi nee na boobu moo gën ab jullit day nekk koo xam ne day joxe kon lenn la ci ay aaya yu ñëw di tontu ñu naan ñoom dañoo war a toog rek yàlla moo ngi fi sa waa yow looy def déposé ji nga sa kayit yi déedéet ah est-ce que wëri nga liggéey déedéet waa looy xaar waaw yàllaa ngi fi moom diine daf koy tere ñetteel mooy taqriru mabda innama al bayu an torodin wal bayaani bil xiyaar ma lam yatafarraqa islam dafa teg benn principe boo xam ne mooy ci njaay mooy waxaale moo koy jaayee fanweer ah ñaar fukk laa mën de waaw sa waay yokkal tuuti waaye ngeen di waxaale ba fu ngeen d'accord nga fay jox waa ji xaalisam nga jël sa bagage daal di dem say marchandise daal di dem loolu l'islam daf ko nangu loolu du riba waxaale ba ngeen d'accord yéen ñaar antarob ba ngeen gërëm d'accord yeneen bi nee na kii jënd ak kii jaay ñoom ñaar ñoo ngi ci tànn tiif tànn bil xiyaar waaw da ngay wax lii laay jaayee waa ji ne lii laay jëndee ngeen di wax di wax di wax ba d'accord mu fay nga jox koy bagage am mu daal di yenu dem yoonam fekk tàqalikow leen bu fekkee ne da nga ne temps laay jaayee waa ji ne temps laay jëndee mu dem nga dem njaay mi su koo gis mën nga koo jaay moom it dama lay jaay ñaata ñaar fukk xaar ma daw indi ji xaalis bi amoo droit jaay ko parce que d'accord nañ su ma ñëwul nag su ma ñëwee indiwuma xaalis bi nag wala moo ñëwee naan affaire bi kat affaire bi fecceeku na waaye bu ñu xas-xasee fay prix rek waa ji moom moom loxo bi xaalis bi na dugg ci loxo waa ji waa ji daal di joxe marchandise mi ñeenteel mooy